الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد asalaamualeykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur banlieue FM TV ñu ngi am mbégte di daje ak yéen tey ci bisu ajjuma bi ñu fas yéene euh, laabante biir ci diine waxtaan ci euh, thème bi nga xam ni tey moom la tàmm muy euh, muy aqu dëkkandoo. xam nga ni àqu dëkkandoo dafa nekk lu am solo lool sax ba alxuraan wax na ci ay yoon yu bare tey nag ñu fas yéene e, dugg ci e, pàcc boobu ñu jëlee ci suuraat bi ñuy wax an nisa suratu nisa muy suuraat ñeent aaya fanweer ak juróom-benn boo demee ci aaya fanweer ak juróom-benn borom bi subhanahu wa taala ma ngay wax wa baad audu billahi min alcheytaan arrajim wacbuduu allaha wala tushrikuu bihi shay'an wa bilwalidayni ixsaanan wa bizi lqurba walyataama walmasaakini والجار ذي القربى وجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا borom bi mu nga nay wax naan nañu jaamu nañ ko jaamu moom dong yàlla dañ ko war a jaamu moom kese sellal jaamu bi ñu koy jaamu bañ ci bokkaale ak lenn lenn lenn seetlu nañu ay aay yu bëri fu yàlla waxee loolu rek li mu ciy teg mooy nga baax jëm sa ay wayjur mu ni moo tax mu ni wa bil walidayni ihsaanan sunu tembe passé jotoon nañ ci waxtaan yaatal ci bu baax a baax mu ni wa zil ak i jege yi jege ñaale yi mbokk yi wal ak jirim yi waaw jirim yi ay waay ñakk yi mu teg ci lan euh, mu ni wa jaaril junubi ak dëkkandoo dëkkandoo wa saaxibil jambi waaw ak dëkkandoo moo xam dëkkandoo la bi nga xam ni da ngeen bokk ah, dret wala dëkkandoo bu sore mu ne ak ñan mooy ña ngeen di àndal bis bu ne waaw baax leen ci seeni dëkkandoo muy dëkkandoo mbokk wala muy dëkkandoo bu sore wala it ña ngeen di xam ni ñoom ngeen di àndal ngeen di àndal tukki nit mën nga ànd ak moom ci tukki mën nga ànd ak moom ci daje yooyu yëpp mu ni ak ñan waaye tukki yi muy doxandéem yi doxandéem yi ak jébbéer yi maanaam li leen seen ndoxandey yi jox muy ca jamono yi ba nga xam ni boobu jaam amoon na waaw mu ni ndax borom bi subhaana wa taala bëggul ki nga xam ni dafa nekk di eh, eh, rëy rëylu wala di di di di di nekk kuy wane wala di ngistal ci e aay boobu borom bi azza wa jalla mu ngiy digal ni bu ñu ko bokkaale ak dara ak lenn ndax lan ndax moom mooy ki bind yàlla moo bind lépp lépp lu ñuy teg bët ak lu ñu dul teg bët yàlla moo ko bind waaw kon ki bind ki créé ah, Euh, jaaduwul ñu koy bokkaale ak leneen ndax itamit mooy ki nga xam ni moom mooy jox waaw joxe bu mucc ayib mooy jox ñëpp ñëpp yàlla lañu jublu ñëpp tey ci yàlla lañ jublu muy doomu aadama mala jinne ak lu mu mënti doon yàllaa koy jox wërsëgam waaw moom dong nag te kenn jàppalewu ko ci aajo yi mbindeefam yi yàlla li mu bind yépp la ñuy soxla ci xeetu dund ak ci xeetu nekkin ak ca la ñuy lekk ak ca la ñuy nekkee lépp yàlla moo ki nga xam ne moo koy taxawee borom bi subhaanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mës a laaj ku ñuy wax Muaz ibn Jabal yonent bi daal di ko wax mu ni ko yow Muaz ndax xam nga lan mooy eh, àqu yàlla ci mbindeef yi àqu yàlla muy droit wu yàlla ci mbindeef ci nit ñi ak jinne yi ak yu mu bind Muaz daal ko tontu mu ni ko yàlla de ak yonentam ñoom ñoo gën a xam loolu man xaw ma ci dara yonent bi daal Euh, wax ni ko àq boobu mooy ñu jaamu yàlla moom dong te bañ ko bokkaale ak dara loolu mooy àq bi nga xam ni moo dox diggante yàlla ak ay mbindeefam yi ñu jaamu ko te bañ ko bokkaale ak dara waaw ñu jaamu ko te bañ ko bokkaale ak dara mu ni su nit ñi defee loolu yow Muaz ndax xam nga lan mooy àqu nit ñi ci yàlla àqu yàlla ci nit ñi moom wax nañ ko mooy nit ñi bañ jaamu ko bañ ko bokkaale ak dara waaye léegi lan mooy àqu nit ñi ci yàlla moise ni ko yàlla daal ak yonentam ñoom ñoo gën a xam tontu boobu yonent daal di koy wax ni bu nit ñi defee loolu mooy jaamu yàlla moom dong te bañ ko bokkaale seen àq ci yàlla mooy yàlla du leen mbugal loolu mooy doon seen droit kon yàlla du leen mbugal xadis bi ki ko solo muy Buxaari ak Muslim ci noonu yont bi mu ngi soññ pour nit ñi baax alxuraan moo ko wax jëme ci seeni ay ndey ak seeni baay ndax tamit nit ki nekkam ci àddina yàlla nga ko jaarale ci diggante ndey ak baay kon na nga baaxee ñooñu nanga leen baaxe ay aay yu bëri wax nañu li jëm ci loolu mooy baaxe say wéyjur fu yàlla santaane nañ ko jaaw moom dong bañ ko bokkaale li mu ciy njëkk teg mooy nga baaxe say wéyjur waaw waaw yàlla wax na ci beneen aaye mu ni nag ah, amal kóllëre ci man nag yow jaam bi man maa la bind indi la ci àddina amal kóllëre sa borom nag ak say waajur say waajur tamit sa nekkin àddina yàlla mu ngi ko jaral say waajur bi ci yàlla mooy nga bañ ko bokkaale ak dara waaye tamit bi say waajur tamit mooy ñoom ñoo sabab seen sabab ñoom moo tax nga nekk nga ñëw ci àddina bi muy yàlla ma ngi koy wax naan dogal naa ni bu leen jaamu kenn ku man waaye tamit ngeen di baax jëmale ni ay waajur waaye yemul foofu mu ni tamit ngeen di baax jëmale say mbokk jokk mbokk loolu ci diine la jokk mbokk ci xadis bi nga xam ni bu wér la yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ni euh, euh, sarax bi nga xam ni joxe nga ko ku ñàkk moom dañ koy wàññi rek comme sarax waaw waaye nag su fekkee da ko jox ab mbokk nag moom day daal di taxaw taxawaayu sarax ak taxawaayu jokk mbokk taxawaayu jokk mbokk waaw voilà mu nekk xadis bi nga xam ni euh, ki ko solo mooy euh, nasa mu ne tamit ngeen di baax jëmale ci jirim yi aaya bi wax na loolu mhm. wala yataama waaw ak jirim yi ñi xam ni ndeysaan yàlla dafa dogal ñi ñàkk way jur ak way jur nu mu neexee way jur nga xam ni moo lay toppatoo moo yore sa lépp moo lay dëkkal yore sa dund boo feebaree moo lay faj nga ñàkk ko loolu metti na moo tax borom bi subhaanahu wa taala mu santaane ñu toppatoo jirim yi ak way ñàkk yi nga xam ni amuñu dara li nga xam ni euh, mën nañ ci jàpp euh, ñu nekk ñi nga xam ni ndimbalu ñeneen ñi rek la ñuy xaar waaw way ñàkk yooyu nag bokkul ak ñiy taxaw di laaj ñiy taxaw di laaj di yelwaan ak yooyu ñooñu ay saa la ñuy wax la ñu tudd dañuy laaj waaye nit dina ñàkk te mënul taxaw di yalwaan mënul taxaw di laaj sag rek lay demee ñooñu ñooy ñooy ñooy ñooy nit ñàkk dëgg dëgg dëgg dëgg ndax ki taxaw di laaj ñoo ngi koy jox muy la ay problème am mais kuy mënul laaj ñàkk toog muñ kooku mooy ki ñàkk dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaw si noonu borom bi subhaana wa mu ngi santaane tamit ñi taxawee ñooñu nga xam ni mooy aji ñi ñàkk ñi nga xam ni mënuñu seen bopp dara waaye ñi dimbal leen ba nga xam ni seen xaal boobu seen situation boobu ñu jóge ci euh, loolu aussi lu am solo la mu teg ci borom bi subhaanahu wa taala muy nga baax jëm sa dëkkandoo waaw sa dëkkandoo bu jege walla sa dëkkandoo bu sore Ibn Abbas nee na dëkkandoo bu jiitu bi dafa am euh, benn àq muy àqu mbokk kooku mooy àqu mbokk kooku ba tey bokkul ak dëkkandoo bi nga xam ni mooy bi ñaareel bi waaw dëkkandoo bu jiite bi dafa am àqu mbokk waaw bokkul ba tey ak dëkkandoo bi nga xam ni mooy bu bu bu ñaareel bi waaw ku ñuy wax euh, nawf al baqaali ñooñu ci boroom xam-xam yi ñu solo xaddis yi nee nañu dëkkandoo bi njëkk bi sës rëkk bi mooy ki nga xam ni jullit la ke ca topp nag mooy ki nga xam ni du jullit ki nga xam ni du jullit mais dëkkandoo la moom am na àqu dëkkandoo foofu la yem mais ki nga xam ni nag ah jullit la comme yow dafa am ay àq yu ëpp loolu ñu jëlee ci ay xadis yi nga xam ni xadis yu bëri yu wax ci àqu dëkkandoo daañ ci tudd yenn rek bi si jiitu mooy abdullah ibnu omar mu ngi nett ni ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ni man de jibril musul jóge ci di may soññ pour may toppatoo dëkkandoo mu may soññ pour ma toppatoo dëkkandoo baax ci sama dëkkandoo ba ma foog ni sax xanaa dëkkandoo dafay mujj sax am yelleefu donn waaw hadis boobu ko solo muy buxaari ak muslim abdullah keneen ku ñuy wax abdullah ibnu amr ibnu al aas moom nettali na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xarit bi gën ci xarit yi ca yàlla mooy xarit ki gën a baax ci xaritam ki gën a baax ci xaritam xarit boobu moo gën ca yàlla ki gën a baax ci xaritam waaw mu ni waaye dëkkandoo bi gën ci dëkkandoo bi ca yàlla mooy ki gën baax ci dëkkandoo muy hadis bi nga xam ni Tirmizi moo ko indi ak Ahmed ñetteel bi ku ñuy wax ku ñuy wax al miqdaad saxaaba bu ñuy waxee al miqdaad moom moo soloo ni euh, euh, almiqdaad mu ni euh, dëkkandoo bi xam ni nag dafa am ñaari ñetti àq mooy dëkkandoo bi nga xam ni dëkkandoo jullit la ak sa mbokk la jullit la am na àq mbokk mbokk àq deret ak aqul lislaam donc euh, mu nga noonu dëkkandoo nag buñ ko waxee yaatu na yaatu na lool sax euh, ña nga bokkal di liggéey sa ay dëkkandoo lañu ki nga bokkal oto di tukki sa dëkkandoo marital yàlla ci yàlla musal mais bu safaan amee ci yoon bi yéen a yëpp yéen ñëpp yéen a yëg problème yéen ñëpp yéen a yëg problème fa nga nekk di fay liggéey ñala am nga fa ay dëkkandoo bi masalan ma jox leen benn exemple xoolal marché yi tey bu fa musi fi amee cantine yëpp ay dem moo tax dëkkandoo jàmm moo ci gën waaw dëkkandoo jàmm moo ci gën شلونهم؟ ابن عزود منتلي من ينتبي صلى الله عليه وسلم دفلاج اي صحابام من لن لك نجن كسي نجالو نجالي كتونت نيكو لول دي لوني تريلا نجالو لوني تريلا يالا اك يونتم نيوكو تري بكروك بسو بنتي ci noonu yonent bi sallallahu alayhi leen waxaat mu leen bakkaar bi nga xam ni ab waay def na ko muy njaaloo ak fukki jigéen fukki jigéen mu njaaloo ak ñoom moo gën a moins grave que njaaloo ak jabaru sox sox dëkkandoo waaw ak fukki jigéen ci àll moo gën a moins grave ak nga njaaloo ak sa jabaru dëkkandoo waaw ci noonu mu laajaat naka ngeen xam ci sàcc yonent bi mooy laaj de ñu ni ko saxaaba yi ni ko loolu lu ñu tere la lu ñu tere la eh, yàlla ak yonent bi ñoo ko tere ba keroog bis bisu pénc yonent leen nag bakkaar bi nga xam ni waaye def na ko mu sàcc fukki kër fukki kër la wax de moo gën a moins grave que mu sàcc kër dëkkandoom kon gis ngeen àqu dëkkandoo nekk na li nga xam ni lu foor la lu foor la ñu bàyyi ci war ci bàyyi xel lool xalis boobu ki ko solo muy euh, imam ahmad imaam ahmad ahmad moo ko solo ahmad ñeenteel ba ki ñuy wax jabr ibn abdullah moo nettali mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni dëkkandoo yi ñetti xeetu dëkkandoo moo am mu ni benn dëkkandoo bi benn àq rek la am ki ci topp ñaari àq la am ñetteel ba ñetti àq la am te kooku moo gën a euh, àqam moo gën a maanaam moo gën a for mu ne ki jiitu ki moom mooy dëkkandoo bi nga xam ni maa maanaam euh, daal mushrik la day bokkaale waaw kooku moom àq bi mu am bi mooy àqu dëkkandoo rek fa la yem waaw ñaareel ba mooy ki nga xam ni ab jullit la kooku dafay am àqu lislaam ak àqu dëkkandoo muy ñaari muy am ñetteel ba mu ni ab jullit la ah ba pare nekk mbokk jullit la nekk mbokk waaw moom ñetti àq lay am muy àqu dëkkandoo ak lislaam ak àqu euh, deret maanaam <clears throat> deret bi ñu bokk juróomeel ba si ñuy wax ci ay xadiisu àqu dëkkandoo muy Aïcha te yàlla gërëm nettali mu ni Eh, ay neen dafa mës a laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko de de dama am ñaari dëkkandoo ñaar kan laa ci war a jox maanaam kan laa ci war a jox addiya yonent bi sallallahu alayhi ni ko kii gën a jege sa buntu kër kon gis na ku nu lay gën a jegee rek moom mooy gën a nekk priorité moom mooy gën a nekk priorité waaw xaalis boobu ko soxloo soxloo muy Ahmad ak Bukhari aaya bi wax na ba tey mu nga naan sa dëkkandoo ak ñi nga xam ni say jege ñi jege ñaale ñi ñi jege ñaale am na ñu ni sa soxna yi la waaye ñu wax Ali ibn ibn Mas'ud waaye Ibn Abbas ñoom nee nañu ak ñoom Mujahid nee nañu ñoom daal mooy ki nga xam ni euh, dangeen bokk tukki kooku sa dëkkandoo la ki nga xam ni da ngeen bokk yoon tukki kooku sa dëkkandoo la waaw walla si nga xam ni da bokk dem bokk nekk ci jataay moo gunge la ngeen bokk nekk ci jataay kooku sa dëkk la tukkikat yi ñoom it ay gan lañu waaye ki ñu jëlee Ibn baas ak Mujahid ak Daax mu muqaatil ak ñoom muqaatil ñoom nee nañu euh, mooy aji tukki bi nga xam ni dafay romb dëkk maanaam ci misaal ku jóge Mauritanie war a dem Guinée waaw kooku aussi euh, euh, am na ay àq yi nga xam ni dañoo dañoo ay dëkkandoo lañu nga xam ni dañ ko war a dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax waaw te boobu sax moo gën a wér ci lu ñu lu ñu xaddis yi gën a wér yi la ci ci la bokk ki ñu wax al miqdaad ibn yusrib nettali na mu ni jëlee nañ ci yonent bi sax dégg na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi moo wax ni mu ni mu ni sarax bi ñuy joxe ab ku ñàkk dañ koy jàpp rek mu ni li ngay joxe nit mu lekk dañ koy jàpp ab sarax na soo dundalee soo joxee maanaam nga leel nit wala nga jox nit mu lekk sa doom walla sa soxna yooyu wala kii lay liggéeyal yooyu yëpp boo ko defee dañ la koy bindal comme sarax kon mbokk yi ñu gis ni euh, <coughs> lu am solo la euh, aqu aq yi nga xam ni borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran mu ni ñu sàmmonte ci bu baax a baax ndax lislaam tamit lu rek jublu penku rek allahu akbar allahu akbar guddal sikkim yore kurus ah ak di julleeg di wor lislaam yemul foofu lislaam weesu na foofu ndax borom bi subhanahu wa taala ma ngay wax ca suratul baqara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ويوم الآخر موني نكتم بعد جبلو مغرب رك وجبلو بنك ولا جبلو صور الله أكبر الله أكبر يلول ديخ موني دلولو آه، موني ولكن البر من آمن بالله وإن باه مغنك كجم يالله واليوم الآخر أكبس بنش غي قم يالا بسو بسو بنش والملائكة والملائكة غي قم تمد ملاكي والكتاب أكتيري يب نكتيري أه، مني والنبيين وعات المال على حبه وعيده غي قم يرنت يب تمد وعات المال على حبه وعي مجخي تمد أه، على النخ تمد بول جيول دم نق دانا سدولة دومنا جخي على الله ndax kiy joxe alal mooy ki fàggu alal ki fàgguwul alal du mën a joxe alal kon gis nga borom bi mu ngay leeral foofu la nga xam ne moom mooy njub ak mbaax ak diine wa atal mala ala xubbihi zawil qurba ak i jege ñaale ñi wala yataama ak ñi nga xam ni ñoom it dañoo ñàkk seen ay wayjur muy orphelin yi wal masakin yi ak ñi nga xam ni tamit mooy miskin yi ñu amul dara ñi wabna sabil ak ñi nga xam ni dañoo nekk si yoon di tukki mooy doxum ndéem yi wa saa yi lii ak ñay laaj fii riqaab ñi nga xam ni dañoo leen dal maanaam nekk ci moomeef mu ni waa aqaama gis nga nag aay bi ni ko arrangé gis nga fii nag mu indi waa aqaama salaat mu taxawal julli wa aata zakat waaye da ngay joxe asaka li ngay joxe li la laaj ci sa alal yàlla moo la ko jox kon yow alal ji nga yor momoko yàlla moo la ko jox ak pexe boo mënti def munoo jaar ba fenn ba ni yàlla joxula ko ndax bu dee da ngay liggéey yow suuf bi ngay liggéey yàlla suufu yàlla la ndox mi ngay bayee ndoxum yàlla la asamaan si asamaan naaj bi ñoral gàncax yi naaju yàlla la lépp kàttan bi nga am yàlla la ko jox xel ba nga am di xalaat yàlla la ko jox donc alal dangay ngay faggu yàlla moo ko moom léegi nag mën la lii génnee ci lii nga jox aji ñàkk ji kon joxeel mu ne wal muufoona bi ahdim isa ahadu ñi nga xam ne dañuy sàmm seen kóllëre bu ñu jot kóllërante wasaabi wasaabirina ak ñi nga xam ne dañuy muñ nag aji muñi wasaabirina wasaabirina fi lbasaai waddaraai wa xiina albasi ulaika alladina sadaqu wa ulaika hum almuttaqun kon mu ngi noonu ba tey ñoo ngi waxtaan ci dëkkandoo dëkkandoo jële nañu وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله ويوم الآخر فلا يعزي جاره ومن كان يؤمن بالله ويوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله ويوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت موني يعني صلى كيب كو گم موني كيب كو گم يالا گم بيسو بنچ بومو لور دكندوم بومو لور دكندوم كيب كو گم يالا گم بيسو بنچ ها موني نترال دكندو نترال گنم نترال گنم موني كيب كو گم يالا اك بيسو بنچ mu na wax jàmm wala mu noppi na wax jàmm wala mu noppi beneen xadis a ngi nii yonent bi salaa salaam mu ne man kaana yumin billahi wa yowmi al axiri fal ila jaarihi képp ku gëm yàlla ak bisu pénc na rafetal jëm ci dëkkandoom wa man kaana yumin billahi wa yowmi al axiri فليكرم ضيفه موني كيب كو غم يالا بيس بنت نترال غنم ومن كان يؤمن بالله ويوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ليسكت موني كو غم يالا اك بيس بنت نوخ جام ولا مو نوبي واي nga nek ci koñ lu xew sa kër dëkkandoo nga wër siiwal mayoo sa dëkkandoo jàmm mayoo ko salaam ba pare nga naan jullit la allahu akbar allahu akbar yi dul jeex te say dëkkandoo amuñ jàmm ci yow loolu moom yal nañ ci yàlla musal euh, mbokk yi ñu gën a góor góorlu ci suñu diine te xam ne diine euh, dafa làmboog lépp li xam ni dañ koy dund lépp lu ñuy def ci suñu dundi rek diine wax nañu jàngal nañu ni ñu ko war a defee ak ni ñu ko war a doxalee euh, te bu ñu jaaree foofu rek ba motale yooyu rek suñu diine ci lay door a mot waaye nag diine nekkul rek ci guddal sikkim rek téye kurus rek di yoo dem yoonu jàkk ja te sa làmmiñ bi doo ci génnee lu baax te sa dëkkandoo yi amuñu jàmm ci yow yaa ngi lor ci say dëkkandoo sa làmmiñ yaa ngi lor say dëkkandoo ci sa ci sa ci sa doole yal nañu yàlla musal ci loolu. kon mbokk yi mu ngi mel na euh, euh, lañ ñu mayoon ci waxtu egg na fu muy jeexee. kon du ñu def lu dul ñu tàggatoo ak yéen di leen di sant di leen di gërëm euh, si topp bi ngeen ñuy topp ci banlieue TV FM ñu àndoon ci ak sunu mbokk techniciens yi ñoom si soxo ak Bari ñoom ñoo nekk ci xarala bi jàppale ñu ci liggéey bi macha allah waaye tamit am na sunu ay soppee ak sunu ay xarit yi ñuy topp bitim réew. Euh, ñu tudd si ñu mel na ñoom euh, Oumou gisee ak ñoom Basir Diagne ak tamit sunu ay mbokk yu nekk fii ci biir réew mi euh, ak ñoom Gallo Yadd ca France ak sunu mbokk yu nekk fii ci biir réew mi ku mel na Adama Diop Podor ñoo ngi ñuy bu baax a baax ak Ajuma Diop côté Ndiawdun ak Thierno jàlloo ñoo ngi ñuy suivre bu baax a baax ak euh, mbokk yi xam ni ñoom ñëpp ñu ndeysaan dañ ñu bàyyi xel euh, di ñuy topp ci euh, banlieue TV FM kon loolu moo nekkoon suñu waxtaan tey ñoo ngi indi woon ci àqu dëkkandoo ak li nga xam ni moom la ay yi nga xam ni root na ci ak ay aaya xam ni wax na ci lu bëri bëri kon bu ko defee rek ñu joxe dox daje ba beneen bi ñëw incha allah mu nekkoon seen mbokk ak seen xarit seen taalibe Ahmed Dicko asalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu يا محمد يا نبي amen